di di di sant yàlla di julli ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di ñaanal euh, sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla may ko wër mu yàgg fi di ko ñaanal xalif généraux réew mi yëpp comme ni ko imam bi waxee bës bi bés bu rafet la bésu feet la rappelé nañ lu bës bi am depuis yonent yàlla Ibrahima bi mu bëggee sacrifier doomam pour tabaski ñu ñu roofal ko xar moo tax ñuy tabaskee xar béy nag walla gëléem sax Euh, ni ko kon nit la ñuy tabaskee mais sëriñ bi li ma gën a insister mooy nit ñi booloo dellu ci yàlla euh, di di balonte ak euh, dellu ci yàlla te loolu dama ci insister parce que xam ngeen ne dafa am feebar boo xam ne moo fi nekk feebar bi du ci réew bi rek ci àddina bi répp la su ma sañoo nit ñi booloo nekk benn pour xeex feebar bi nekk ci ginnaaw ki nga xam ne moo ñu jiite moom la réew mi fal muy président de la république dégg naa sax nit ñuy wax naan diw moo fi indi feebar bi président moo fi indi feebar ba xam nga loolu wax ju ñaaw la te loolu du dëgg xam nga président la bi bu fi jógee dem ci biir réew mi di def tournée bu fekkee ne moom moo fi indi feebar bi kon feebar bi kon ci biir réew mi lay lawe mais kon du réew lawee Dakar parce que Dakar la jóge dem ci biir donk loolu wax ju yàq la te lu yàq askan wi la euh, li nga xam ne moo war en tout cas wax ju bon nañ ko bàyyi. yéenante lu bon nañ ko bàyyi nañu yéenante jàmm yéene réew mi jàmm ñi nga xam ne ñoom lañu teg ci bopp réew bi ñuy liggéey ci réew mi nañ leen jàppale ca bañ a wax wax ju bon loolu daal mooy loo xam ne jàpp naa ko ci nga xam ne imaam bi bu wax ci li mu wax ne nañu baalante ak ba pare dellu ci yàlla parce que feebar boo koy xool ba xool yàlla dugal na ci loxoom wax ju bon ak jëf ju bon moo tax xëy na jëye yu mel nii dal ci réew mi daal ci àddina bi donc ñun ñëpp dañu war a dollu ci yàlla lool laay ñaan askan wi ñu gën a dellu ci yàlla ca bàyyi wax ju bon ak xuloo ba xeex bi ak ŋaayoo bi ak violence bi aussi parce que violence bu ñu koy wax aussi yéen ñëpp xam ngeen ne am na fi ay violence yoo xam ne ay acte la dañuy rey koo xam ne deful la dara nga rey ko mais am na ñoo xam ne seen wax aussi dafa nekk violence dafay indi ay di oo fitna loolu aussi nañ ko moytu di wax jàmm di def jàmm yàlla may ñu jàmm